système, le frère coordonnateur camarade Pape Mawo Diouf de dire en wolof du gudd li ñu bëgg wax Ousmane Sonko mooy naxul kenn naxul kenn boppam rek lay nax ndax ku am problème ak sa justice su dëkk ñu ne la kaay wuyu si kaay tontu ci yow li nga bëgg gëmloo nit yi mooy c'est la faute de tout le monde sauf la vôtre et vous pensez réellement que le peuple sénégalais ñiy toog di la seetaan di la déglu ngay nax naxoo kenn sa bopp ngay nax li ñu bëgg wax mosieur Ousmane Sonko mooy ñun suñu dëkk jàmm lañ fi woote salaam lañ fi woote xulowuñu xeexuñu yabaluñu suñu benn doom pour mu xuloo di xeex si problème boo xamante ni ba mu koy am ñoom fekke wuñ ko ba muy am problème moom rek moo fa nekkoon ak soxna si kër tuumal buy régler problème am na dem régler problème am moom kese ak soxna bi ñu tuumal suñuy rak suñuy doom yi mu bëgg utiliser bëgg instrumentaliser pour régler problème mu boppam boo xamante ni ba muy dem chauffeuru boppam sax gungewu ko garde du corps boppam sax gungewu ko tey buñ ko nee ñëwal wuy si na am gor courage bu toll ni dem wuy ji ñi koy woow te yóbbu suñuy rakk ak suñuy doom monsieur Ousmane Sonko vous ne trompez personne et ce discours de va-t-en-guerre ne fait en réalité que refléter cette peur bleue qui vous anime donc comme monsieur le ministre <laughs> me le rappelle encore une fois dinañ ko wax ci wolof suñu wax du gudd yow la ñu woo demal nga wuy ji ba ngay dem di seeti ndaw si yow kese yaa demoon bu la ndaw si tuumalee suñu justice woo la pour nga ñëw wuyu demal nga wuyu ji yow kese suñuy rak suñuy doom bu leen yóbbu si problème boo xamante ni yow kese la concerné ñi ñuy saaga suba ba ngoon ay yaay lañu ay baay lañu te nag dañ ko faral di wax yaru ak rayon bi mbubu rek la ku mu neex nga sol ko ku mu neex nga simi ko fii koo saaga papaam rek am nga papa bu ñu mën a fayu te koo saaga yaayam am na yaay bu ñu mën a sa fayu mais ñun yarewuñu ci loolu te fi ñuy woo duñ la fa fekk si politique d'argument la ñu wootee idée contre idée programme contre mais pas si ay saagante ak si ay xeer ñu ngi woo suñu ndaw yi nag di suñu yaay di woo képp koo xamante ni jàmm dëkk bi moo la ñor ne leen ñun suñu dëkk bii jàmm kese lañ fi bëgg keneen kuñ fi woo leneen lu dul jàmm na xam ni jàmm luñ ko jëndee rek jàmm moo ko gën wasalaam. chers amis journalistes yi doon poser question yi euh, nous nous sommes la coalition Benno Bokk Yakaar nous sommes une instance de la majorité présidentielle une instance boo xam ne politique lay donc pour ki doon laaj sànq ndax république la wala politique ñun fii politique la ñuy wax coalition Benno Bokk Yaakaar li xew Sénégal nag mun nañ koo bañ a nettaliwante suñu biir ndax ñépp ci teg seen bët dafa am façon politique bu xew ci réew mi bu ñu xamuloon ci taarixu Sénégal ndax xar kanamu Sénégal mooy démocratie boo xam ne lépp lañuy ñuy waxtaanee ci jàmm ak salaam amul waaso amul diine ñun ñëpp ñoo bokk yem guléet mu am benn homme politique boo xam ne dafa am tur te dañ ko war di tudd il s'appelle Ousmane Sonko moo fi xëy ne président Macky Sall bëggul joolaay mu doon lu rëy bu aucun acteur politique n'a jamais osé dire moo fi xëy bés ne dañu ma convoqué tribunal dama jote ak benn jànq li mu njëkk a wax sax mooy dewuma fa musuma fa dem loolu la njëkk a bind ci page Facebook waaye mu dem diir xam ne loolu du ko mun a défendre mu effacé ko ci page Facebook bi ñëw expliqué ne dafa feebar ba yaayam di ko jëndal graisse yu yeewu waaye loolu yëpp mun nañ ko nangu waaye liñ mënta nangu ci koo xam ne ci sa coobaree bopp nga jóg di dox sa mbiru bopp ñu woo la nga layoo ak benn jànq bu lay teg tuuma nga woote ne ah bésu dee ku dund doo gor woo ndaw ndakaaru ñi fi ne ne leen je vous un mortal komba jóg leen ngeen jàmmarloo ak takk der yi ba fukki bakkan ak ñeent rot ci il est premier responsable et même l'unique responsable de ces quatorze moo tax loolu dinañ ko waxaat waxati ko cette dérive politique bi ñu sentir nga xam ne Ousmane Sonko ak ñi ñu àndal ñoo ànd di ko dox dafa jot tous les acteurs responsables du Sénégal dans les sphères sociales dans les sphères de la société civile dans les sphères politiques ñu différencier seen bopp ci li nga xam ne moom la Ousmane Sonko di woote pour taal réew mi ak ñoom ñi nga xam ne am nañ ay action politiques am vision politique ndem ute na ak ñun mais tamu ute ak ñiy woote ñu song juges yi les institutions songu sëriñ si reyanteeg ñoom guléet mu am homme politique ci meeting di wax ak le président de la république des 17 millions de sénégalais ne moom président de la république dina ko rey wala moom mu rey ko c'est un appel au meurtre au président de tous les sénégalais tous les patriotes et les démocrates véridiques et patriotes pour le Sénégal doivent dénoncer ce style, cette méthode, bi nga xam ne c'est fondé sur la violence piétiner nos institutions à tout va écraser li nga xam ne mooy suñu kilifa diine yi loolu képp kuy responsable ci réew mi war nga ko bañ naka noonu yi tamit war na xam ne lu mu ko jaral pour mu taal réew mi am na ay sénégalais waxuma la sax ay hommes politiques rek mais ay sénégalais yu bëgg réew mi loo xam ne lu mu ko jaral moom pour mu taal réew mi dina leen jaral lu ko ëpp fuuf ngir sàmm réew mi ndax réew mi nag ay mag ñu baax ko tabax ci fànn yëpp ci fànn politik ci fànn diine ci fànn cosaan ak aada ba tax fii Sénégal tey Sénégal doon na réew moo xam ne àddina yëpp moo ko teg bët ci stabilité ci démocratie ci mën a joxlante ci jàmm ak waxtaan amul xuloo ci diggante diine katolik amul xuloo ci diggante waaso xamuñ kan mooy joolaa kan mooy mooy julit kan mooy katolik ak ci gëmul dara lijjanti wuñ ko guleet moom ak ñamu àndal ñu ne dinañ fitnaal sénégalais yi ba dootuñ sañ wax seen xalaat dinañ leen fitnaal ba ñu am complexe ak seen diine dinañ leen fitnaal ba ñu am complexe ak seen i institution loolu am na nu koy wooyee en matière de science politique c'est du fascisme mooy fexe ba kenn dootul mun a wax xalaatam ci réew mi loolu nag ñoom ñi ne ci projet boobu nañu xam ne loolu du sotti lu mu leen jaral ci kattan ci pexe ci mën-mën ak xalaat ak engagement coalition benn Bokk Yaakaar waaye de la de coalition benn Bokk Yaakaar sénégalais yépp li ci ëpp ci ñoom lu ko raw dina leen ko jaral ngir ñu arrêté leen li ci njëkk nag ci réew bu am ay institution justice bi ñun tàmmuñ ko justice bi fii lañ ko fekk fii lañ fekk l'Assemblée nationale fii lañ fekk le gouvernement fii lañ fekk l'institution de la présidence de la République fii lañ fekk institution sociale yi nga xam ne mooy les ressorts essentiels yu fondé sunu démocratie Serigne Fallou Serigne Fallou taxaw Senghor catholique bi premier président du Sénégal ne ko Senghor seng ca kaw ba ñu bâtir une nation bi mel ni mu mel ñëpp ñeewuñu ko Ousmane Sonko se trompe de pays et de république il se trompe de nation moo tax dina wuy ju justice su ko wuy juwul tamit nos institutions ont la force et la mémoire la sagesse et l'équilibre pour yóbbu ko devant la justice parce que loolu mooy seen liggéey te it war na xam une bonne fois pour toutes que réewu Sénégal du réew bu ñuy xëy di taal ku yaakaar ne mun nga xëy taal Sénégal sa bopp ngay taal kenn mënul taal Sénégal sénégalais yi dinañ ko défendre avec la dernière énergie te dinañ défendre seeni institution institution sociale comme institution républicaine li ci des yëpp euh, xanaa di ñaan jàmm ci réew mi ndax ñun jàmm lañu woote waaw am na ñu naan jàmm gën troisième mandat waaye jàmm dafa gën lépp jàmm daa gën lépp te woote jàmm moo gën ngay woote taal réew mi réew mii nag ni ñu ko fekke ñun li ñuy dox mooy fexe ba président Macky Sall ak majorité am suñu liggéey ba pare ñu delloo ko ci xar xanam boo xam ne moo gën ca nañ ko jote woon ndax ñoo xam ne seen xel ak seen projet politique ak seen idée pour développer Sénégal yépp ñaari kàddu la benn bi mooy troisième mandat troisième mandat gàtt na ci ambition politique troisième mandat gàtt na lool ci gis-gis pour développer réew mi deuxième bi mooy soo ko fi waxee dinañ ko taal mais li ngay taal da nga ko bëggul on la sagesse du waa Salomon ci doom ji ki noonu naan da ko jur kii ne juru dafa jël jaasi bi ne day dagg xale bi ci nangu ñu daggu xale bi ñu ne ko yow juróo ko ñun Sénégal kenn du ko taal te waajuñ ko taal te duñu seetaan ku ko taal donc loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu bëggoon a sànni ci kàddu di dolli di waate jàmm ndax ndax jàmm ci la lépp xaj ñun li Sénégal yëpp war a xam mooy sunu njiitu coalition ak le président Macky Sall li ñu woote mooy jàmm waaye am fulla itam ak fayda ak détermination ba nga xam ne lu nit def pour bëgg a yàq li nga xam ne mooy sunu réew ñu taxaw taxawaay bu ko raw ngir sàmm ko di leen gërëm di leen sant jërëjëf. peut